waaw sant yàlla balaa dara mooy nuyu àdduna. Mm-hmm. di nuyu sama sama gars yi ma fekk fii ci bi di di kontaan trop ci bokk kook ñoom. Mm-hmm. di nuyu waa banlieue bi ma jugee di nuyu fépp fu soppee di Diop toog. Mm-hmm. di nuyu sama papa. di nuyu sama yaay sama xarit. waaw di nuyu nag euh, sama sama staff bépp. waa loolu kontaan parce que loolu lañ doon ñaan yàlla bu njëkk bu fu ne lañ daan dugg pour ñu xam ñu. bu ñu demee ba bis bi ñu ci am ay ñetti programme wala ñeenti émission ñu koy def ci journée bi ba doo talati nelaw mhm. loolu sant la parce que ñoo daan ñaan yàlla nañ dem ba duñu talati nelaw mhm. tey bu yàlla ñëwee rek mhm. dañ koy sant ba pare di ñaan yàlla mu dolli dolli ko mbokk artiste yëpp ci barke Serigne Saliou. et puis macha allah ci benn at tëgg nga fépp grand théâtre si fees. <laughs> tourné Paris. <laughs> Europe tëgg tëgg fu ne. voilà am ci ay problème mu visa ak yëpp coow li bëri tëgg fu ne. yëpp ah, donc fu mu tëgg léegi foo tëgg léegi rek sa sa tëggit la waxal. waaw dégg moo waral ñu temps yi ñu joué ñaari vendredi ba ñu jugee tabaski ñu joué Golden. mu mu mu gis a fermé. ah oui démb ñu demaat Golden la même chose. ñu ne nag kon ko dese nañu benn salle bu ñu jéegul. Mhm. Euh, mooy mooy penc mi. Mhm. lu tax penc mi. waaw parce que def nañ salle yëpp. Mhm. man def naa salle yëpp Sénégal macha allah. def naa Ravin. yëngu leen Pentola Saraba def naa salle yëpp. penc mi rek laa defagul. ma ne nag euh, dinaa fa ñëw bëggeel bëggeel sama soppe nekk Medina. Euh, côté boobu HLM. ñëpp ñëw ñu bëggee foofu noonu. kaf fooree kon ni ma ko doon defee ci yeneen boîte yi. Mhm, mhm. waaw moo tax ma donc à prochain. yaa ngi yaa ngi penc. non bi jour boobu la rek samedi bi rek. samedi ah, jour boobu kase. ñëw foofu gars ñëw ñu bëggee. Mhm. waaw comme que fu dem. après ñu woo ma téléphone fajar gi ne ma do dañoo mer mhm. ndaxte ambiance am na neex na mais doo mën a yëkkati sa tànk waaw mhm. ah, penc mi nag li lu penc mooy fu yaatu ma yóbbu leen penc ma xanaa penc mi ñoom dinañ mën a fecc <laughs> incha allah exactement euh. mais euh, moom ci liñ koy laaj rek par rapport toujours ak carrière bi macha allah parce que ñu ngi def ay euh, tournée et tout mais à un moment donné aussi est yaa ngi xalaat tamit liggéey sa album pendant nga def tournée wala am na artistes yoo xamante ne bu ñuy seen tournée la ñuy créé waale Euh, ay morceaux yuy génn ci seen album. bien sûr que oui ñu ngi waaj ay featuring yu bari bari parce que tournée bi bañ demee Maroc rek am na benn benn Mohamed benn gaan bu fa nekk Mohamed. Mhm. koo xam ne moom instant yi mi ngi def buzz bu mag Maroc. Mhm. man ak moom def nañ featuring ah, mais mi ngi war a génn dans un mois. Mhm. waa ñi ngi ñi ngi tamit album boo xam ne lépp acoustique la. Mhm. parce que waaw parce que Sidi mi ngi way mi ngi ambiance mais damaa bëgg tamit wane beneen facette. Mhm. dama bëgg a jël lépp def ko acoustique. Mhm. ñi ngi waaj projet yu bari ñi ngi tamit ci projet Jaabira Tour. ok Jaabira boo xam ni. fépp Dakar gépp la ñu war def Jaabira Tour. ñi ngi koy ñi ngi koy commencé nag suba. Besseyaawu. fii ci plage bu Bissau bu ñu fa jógee le 15 septembre maa ngi dellu euh, sama gox muy Ravena club mm-hmm. bu ñu fa jógee le le 5 octobre mm-hmm. fa koy tëjee monument de la renaissance mm-hmm. pour pour la première fois parce que monument bi boobu ba léegi benn mbalax maan tëggagu fa ay kii ñëw fay tëgg ñag yi ñoom Davido waaw te monument bi nag ñëwul seen dëkk quoi suñu dëkk fii la ne ñoom Davido ah ñoom Whisky comprendre nga alaaji voilà et eh, boobu la alaaji alaaji alaaji waaw alaaji ñoom Davido Wizkid alaaji ñoom ñoo fa ñoom ñoo fa tëgg te monument bi suñ dëkk la nekk ah, ah. ma ne gars yi pourquoi pas eh, ñu ñu dem fa jouer fa bëggal sénégalais yi parce que bëgg nañ ñu mhm. ba fu ñu leen woo ñu ñu ñu wuy suñu mhm. kon dernier samedi vacances yooyu nañ ko def monument de la renaissance mhm. ma ànd ceeg les jumeaux ak Tipo Prod ak 5 étoiles entertainment le cinq octobre incha allah foofu la ñuy tëbee tëjee jaabiraat vacances yi quoi ah, carrément instant ah. bi génnaale kon ñu ngi koy tourné benn séquence rek a ci des mais dañoo bëgg a bàyyi ba loolu jege si ñu may ko gars yi mhm. ah, euh, bëri ay snap et ñu ko def bàyyi ci YouTube bi mhm. looloo tax te loolu laa doon bàyyi mu dem ba ci kanam donc mën nañ jàpp ni euh, sa tournée yi ngay def aussi di nga jël audio boobu noonu comme da def euh, album live donc euh, ni nga ko génnewaale live yooyu tamit dana bokk ci projet yi. waaj tamit benn morceau bu ma war a dugal incha allah vendredi ci Papis Konaté boo xam ne concert yi ma def yëpp laay dajale vidéo yi remercier waat ci soppe yi ndax li loo doon wax rek doole jën ndox la mais man sama doole public bi la. Sidi Diop 2016 la génn def Chéri Boy sama mbëggeel ci yow 2017 mhm. ma jël meilleure révélation de l'année 2018 mhm. ma ñëw ba léegi. Euh, suñu borom mi ngi may def ci xolu jaam ñi mm-hmm. kon cin bu naree neex bu baxee xeeñ mm-hmm. mooy li ma waxoon sànq rek te tàngoo na ndur mm-hmm. man sénégalais dañ ma sas heure bu ma xëyee liggéey rek am war mhm. moo tax sama mag ji daf may répété loo ba muy bëgg a dee mhm. benn jour daal la may may ma noppalu muy mhm. lundi mardi mercredi jeudi dama koy répété xëy vendredi dem jeudi samedi ma jeudi kon liggéey moo ci des yaa ba pare ñoom ñu nekk génération bu voilà quoi buy cartonné que muy Tarba que muy moom que muy El Hadj Keita sama euh, frère El Hadj que euh, euh, Momo Dieng Kulim Dioum ay xale yu am talent quoi te affaire bi actuellement ci façon de parler ci ni ñuy solo ko ci ni ñuy woyee euh, loolu itam lu am solo la jamono bu nekk ak lu ciy xew comme je moom lay wax ku xew la sa morom ñëw mhm. ah, donc kii bu xewee ah mais tëkkërëb ñu ñëw jàpp ci si sa xew yi euh, il se fréquente d'habitude c'était un peu compliqué avant mais léegi dañu gis ne léegi presque nouvelle génération bi ñoom ñëpp il se fréquente kii bu xewlee keneen ki ci boppam sax bu ko invité lee mu ñëw toog ñëw jàpp ci xewam et tout ça. parce que dañu comprendre quoi en fait. Mhm. ndekete amul solo. Mhm. moom euh, sama frère la. jeune Madison ma dem fa. Mhm. wax dëgg yàlla soirée bu neex fees dell. Mhm. ma dem fa mu neex loolu. Mhm. ma joué tamit mbuur Mbour ki démb 15 août dama jékki-jékki rek mu tëll ci kaw scène bi. ne ma li nga ma defaloon laa lay fay te nag euh, man man man man gor laa. te it nag murit laa am na loo xam ne su ma ko nit defee rek. danga may jàmm loolu nag neex ma trop copain yi toog tamit di ma bëggee. waa HLM Grand Dakar ñoom di ma bëggee bëgg ma. Tarba moom it maa ngi koy fonce mon frère yal na yoon bi neex lool. ba mm-hmm. kawe a njort. amin amin balaa nga ñuy jaabiraal euh, Tarba yow tamit. Euh,